sadri wa yassir li amri wahlul am ngeen YouTube aousubillahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim laa xawla wala wa yassir li amri waxlul xudata min yafaxu xawli asalaamaaleykum waa biir réew mi ak waa bitim réew mi àndandoo di ñu suivre ndoo ci youtube bi waaye nag facebook en live bi nga xam ne abonnement moo la ciy tax a dem rek dañ ciy def 10 000 vues donc bi nga xam ne c'est un peu euh, indépendant ku neex rek da ngay dem connecté wu directement foo mën a nekk da nga nuy am aussi te loolu lu ama am solo la dama ciy gërëm nag xale yu yaru yu teey yu dal yu am jom te di jàmbaar nekk ci digital bi sous la houlette de Diène Ndiogou borom ma nga ca congé ba waaye gannaawam vraiment macha allah Jamila nga fa la belle faatu ma nga fa Omar Gueye ma nga fa Omar Silla ñoom ñëpp yàlla leen yàlla taxawu ñu egg na yoon. bu ma jógee ci damay ñëw ci Bintu Fall ñëw ci Aliou Keita ñëw ci le grand technicien ingénieur de son Pierre aussi ak peut-être Keba ak ñi nga xam ne rek ñooy jàpp ci yoor yor jarul sax nuyoo bi di xaw a di gudd parce que gis nga on nous prend notre temps mais on ne peut rien on n'y peut rien mënuñu ci dara yàlla dana ko mës a dindi incha allah. amaat nan fi ñaari invité comme d'habitude àllarba ji xam ngeen Cheikh Fall Sow borom témoin FM quatre-vingt-dix une soldaar la waaye directeur rajo la. di liggéey ci média ak digital bi nii waaye rawatina nag buñ ko soxlaa bay ñëw à chaque fois ak Ablaye Diang sëriñu daara la dong daara la waaye sama ancien. auditeur la ba mu nekk ci daara ja da daan suivre ah, émission yi ci rajo bi mm. <laughs> léegi nag fii lañ toog moo may wet dinaa ma non non non déedéet sëñ Baara nee la ak naa la garab ci kaw lay fekkante dëgg la ñu ngi koy nuyu Serigne Cheikh maa ngi lay nuyu la wax dalal ci yoor yoor asalaamaaleykum waaw maa ngi lay fay nuyoo bu baax sëñ Baara xam naa ne nañ ñu soldaar la woon ndax damay bañ le droit de réserve daal sama kaw waaw kaw ko dañuy wax le droit de réserve buñ mm-hmm. ne la ak lawoon. lawoon la boobaa kat waaw. <laughs> lawoon woon na waaye. waaw alkaat du bàyyi dóor. déedéet comme la ma doon wax benn euh, officier rek ba mu gisee mu ne man ko xam nga ko ci nekk dafa am lu la charte yi tënk. Mhm. soo nekkee officier tànk demuloo ba am 65 ans waruloo dugg ci wàllu politique débat politique wala ngay créer ab parti politique. gis naa kun remonté les bretelles <laughs> démb. waaw loolu. Euh, <laughs> ñu ne ko kaay nag yow xam nga soldaar nga woon daam loo war a wax loo warut a war ak xam naa fi ma war a yem <laughs> démb démb démb la ko gendarmerie woo <laughs> donc loolu tamit ñu koy fàttali bi waaw bien vrai ah, que ne Cheikh Tidiane Mbodj Mbodj ah, yi xam nañ ko waaye nañu kii tamit topp charte yi ndax ah, les règles ay bien les règles sont bien définies très claires aussi mm. mais lu ci nekk rek tamit euh, nañ koy def ci ak dal rek ak ci teey waxee am na tukki waaw waaw lañu bombardé loo leen fenn mais bu ngeen di wax lu taxoon ngeen bombardé ko waaw xam nga day metti <laughs> ndax na ñu ngi ci leneen. <laughs> xewi na parce que xam nga li ñuy wax l' article soixante onze vingt quatre du six dafa wax ne droit de réserve ci ñi nga xam te ne moom mooy kon lu takk der yi. Hmm. même boo génnee tamit ci officier yi dafa am la nga xam te moom la la may ci at ya nga xam ne aussi foofu nga war a egg pour mën a. ci wàllu politique wala ngay hmm. créer parti hmm. politique. loolu aussi xam naa ne léegi-léegi ay borom xam-xam lañ bien vrai que mais quand même li ñuy wax <laughs> lan rek <laughs> benn lañ kon suñu baax ñu ngi lay gërëm bu baax a baax di nuyu ñëpp tamit ñi nga xam ne ñoom ñoo fi teew bien vrai que ne temps bi est un peu court tamit mhm. mais quand même l' essentiel que lépp lu ñuy wax rek aussi tamit na doon njëriñ ci askan bi mhm. mhm. jërëjëf mu gudd mu gàtt looloo am solo Bintu Fall dañ ko agressé démb jël portable ki jël portable Bintu Fall mi yendoo liggéey fii ba ngoon jot daj li muy daj dafi pexeem lijjanti ba am iPhone bu am solo bu baax nga ñëw topp ko topp topp topp ba mbéj jël këf téléphone am daw sarax nu nga delloo si ko fii ci wal fajri dimbali nga ñëw jox ko gardien bi rek ne fee nga ko fore jox ko dem sa yoon bintu ñu ngi lay masawu lool lii métti na lool lool lool lool lool kuy liggéey daal duñ la bàyyi sax nga liggéey léegi. loo denc ñu jël ko jur goo am ñu sàcc ko fas ak xar loo yar ñu sàcc otoog motoog scooter ak loo teg ñu jël buñ la gisee ci internet bi xam ne tukki nga yaa ngi bitim réew ñu dem cambrioler sa kër. parce que xam nañ la livré nañ la ba tàyyi xam nan sa kër bu demee jël say yére jël say ceinture jël say dàllu valeur jël say montre aha solu nag kenn du foog nit ñi sàcc lañu hmm. ñuy continuer di ko def surtout jigéen jigéen juy liggéey hmm. yow wëral jigéen juy def leneen sax waaye jigéen juy liggéey nga dem jël téléphone am noonu lor ko yàlla na yàlla may bu ko gën bu gën a bees yàlla na yóbbu saw ay boole ci téléphone moom day fay coow rek <laughs> maa ngi lay nuyu sax laa lay wax ba wala euh, donga daara moom sa donga ah. <laughs> maa ngi lay fay Baye Bara di la nuyu bu baax di la ziyaare di nuyu képp koo xam ne rek jamono ji tembe mu ngi ñuy seetaanee ci Walf TV mm-hmm. di am mbégte ak kontaante comme d'habitude ñëwaat ci émission bi di mm-hmm. nuyu sëriñ bi sëñ Cheikh Fall sëñ Cheikh Fall xanaa sant bi xaw a doy waar tout rek sow la santoon <laughs> waaw sama nijaay la kon <laughs> xam nga mag ñi moom dañ ciy bàyyi tur wi ah, bi macha allah dañ ko dañ may wax Baara Ndiaye ah, façon bu nekk lañ lay woowee kon maa ngi koy nuyu sama nijaay la kon sëñ Cheikh Sow maa ngi koy ziyaare bu baax a baax di nuyu Imam Farba waaye mhm. doon yaakaar tey dina teew waaye xam naa yitte yi di la di la yàggalik euh, nuyoo sëriñ bi sama mhm. sëriñ sama Cheikh Mourabbi Maulana Thierno Alpha Sow jamono ji tembe mu ngi fii ci Dakar mhm. bàyyi ko Baroso démb ñoo ngi waxtaan moom mooy euh, encouragé waaye di encouragé plateau bi. ah loolu baax na ñu lay ngi lay nuyu bu baax. sëñ bi ñu ngi laa ziare bu baax a baax di la sànni ñaan bu baax a baax sa taalib bi am ngi lay ziare bu baax di nuyu waa Kër Mbaye Fall fa ma jógee. Mm-hmm. waa sama njaatige yi. Mm-hmm. incha allah la romb tooy rek xamal na ci ndox la jógee ca géej ga wala ca dex ga wala ca xam nga. dëgg la daa taw tey yow loolu li nga jël ci sa sëriñ bi yaa ngi koy doxee. di ko dikkee fii moo tax léeg-léeg bu la woowee rek. Mm. dañ lay woowaat woowaat la woowaat la. yàlla nu yàlla jàppale ñu ñëwaat rek ci nga xam ne moom lañ fi nekk woon fan yëpp muy euh, benn jigéen bu doon ñaxtu rek ci boroom këram amoon na amatul man nag man naa cee dolli. Mm. am na ñoo xam ne mënoon nañu mënatunu am ñoo xam ne wéroon nañu wératunu mm. loolu lépp bu tegoo ci nit du nu indi yàlla du indi ak càgganteem ak ñàkk a mën a gérer wala mbaaxam lu mu am maye ko jabar ja la ñuy daal di sikkal ne dafa gaaf. moom day ba mu ñëwee ba léegi waaju daa dellu ginnaaw moom de ba mu dikkee ba léegi waa ji wératul mhm. moom de moom de moom de léegi nag dañuy dem a dem ba dolli ci leneen xam ne waa ji mënu ko wacc parce que bëgg na ko ñu ne ko nag léegi da ngay ñaareel def naa sartu ñaareel yi boole wuñ ci woon boo demee ba torox nga ne damay jël ñaareel pour mën a soqaliku donc am na lu war mais am na loo xam ne lii aadala la bu yàgg ci réew mi mhm. waaye aussi yàq gi aussi dafa tar muy lu metti loo xam ne jigéen ñi dañ koy jàmbat léegi nag góor ñi am nañu comprendre waaye ku say mbokk dëkk ci say nopp guddeeg bëccëg koo demoon sax ne ko may ma hmm. mun la yow kat yow moom sa mbir du neex la ndax yow sa sabar ji kat nangam nangam nangam ñeneen ñi nag hmm. ca njànq ga lan lay gaafale hmm. ba nga lamb ku ñëw rek ah moom da day woddoo ko def nëf ah moom da day wokkatu day laal yaram wi ah moom de boo ko yónnee ndox mu def nii def naa ah, moom da buy dox day diri tànk yi moom de moom da ku ko takk dana la téen ji <laughs> ah, mais yow jànq bi <laughs> lim am ci ay faru rab rek daf ko doy sëkk sëkk sëkk <laughs> maa ngi nuyu Serigne Mbaye eh, danañ ko invité jeudi bële incha allah commercial lay doon mm. ku xam dalay def ay yëf nga nga nga wax say gé yëf yi génn dem may la jàmm donc xale yi li nu boot lépp lépp lépp nga boole ci yow gaafal leen. Hmm. te lenn li du dara lu éducation rek manque d' éducation xale yi da ngay toog léegi mbedd mi ne tekk buntu kër bu nekk fees dell ki nit ndax tàngoor wi. Hmm. xale su ndaw su jigéen 12 ans 13 ans ne rel yuuxu. eh yéen nangam nangam yéen eh xaar leen ma yéen eh, eh, eh, saaga waaw ku mel noonu. Hmm. nga bëgg koo nga bëgg koo gaafal kooku dañ koo yarul. Mhm. kër gu mu dem toj koog lamiñam wu rëy. bu boobaa nag sëy ba du dem mbaa ka koy ñaan si aussi da ko fekk muy ŋeeñ di tricher daal. Mhm. di ngeen di ŋeeñ ba ne sama jabar du wax nga yóbbu ko ci kër gi rek mu tëb loolu lépp itam ay manque d'éducation la waaye nee nañu daal gaaf la. Serigne Cheikh dégg nga waxtaan wi tey loolu mooy mooy sunu débat tey waaw xam naa indeeti nga lu am solo parce que d'autant plus que ne lépp loo xam ne askan bi ñu ngi koy dund rek te nga xam ne ay jafe-jafe la ci biir aussi dafay laaj am um, tamit euh, ñu leen ci gàgganti waaye aussi tamit léeg-léegi ñu leen ci gindi mm-hmm. euh, ndax tamit euh, loolu moom moo waral émission yoor yoor mm-hmm. mais xam nga sëñ Bara xam nga dans la vie li ñu wax l'homme propose Dieu Satan s'interpose mm. et les problèmes se posent ah, parce que dañoo dëkk ak seytaane te mënuñu ko baña a boole ci mm, waxtaan yi te ñu ko mënuñu ko bañ a boole ci mbir mi tamit mm. waaw parce que à chaque fois moom tamit day participer te lépp lu muy def tamit ak pexe bu mu mënti def rek ndax bu ñu wax seytaane yàqkat la mm. yaakaar naa comme nu ko borom téye di waxee yàqkat la te moom itamit mu ngi participer ci biir doomu aadama yi moo xam nag nan la leen di galgale wala nu mu leen di gàllankoore mm-hmm. maintenant yaa ngi wax ci gaaf ci wàllu li nga xam tey mooy société xam am na mm-hmm. dafay wax yu gaaw yu neex yoo xam ne <laughs> waaw il faut ñu taxaw saytaane mm-hmm. da koo dëxañ rek jàll mais saytaane boobu ba nga dugg ci xelu keneen kooka attaqué la yow te defoo waxoo de waaw fekk seytaane moom moo ni ko kii daa gaaf waaw kii ndox bi bu la boo tasee moom suba teel waññeekul du gàttal sa kër. Mhm. da ngay umu. Mhm. kii kër bu ngeen tegoo loxo journée bi day neex. Mhm. bu ngeen tegoo seytaane mu nga ma ngay dawal ca keneen ka de. effectivement du ki mu dal nag mais mi ngi feeñal feebaru jàmbur. ci bëti te nga xam ne kii mooy ki ngay ki keneen ki. tout à fait day rafetal wax ji. ah voilà. waaw dafay rafetal wax ji xam nga saytaane moom ak saay saay ñoom ñoo yem par façon seeni pexe dafa rëy. te nekk rek. su la yàlla dimbaliwul mën nga tàbbi ci seen i pexe bañ nañ ko ba da ngay gis par exemple euh, benn parenté rek ñoo xam ne déjà dañ leen di tam dëmm ñu ne diwle wu moytu ko ay dëmm lañu. Mhm. lu ko indi seytaane moom moo ko waral. Mhm. mais tu sais très bien que ne en âme et ñu toogoon borom xam-xam yàgg nañ ci di wax di ci wut yee nit ñi di ci kii mais xam nga. dañoo nekk ci askan boo xam ne. Mhm. am na ñoo xam da leen di yee ñuy nelaw nga leen di yee ñuy nelaw ba njël la ngege naa la continuer di nelaw. Ah. mais li ngay wax. donc am na si foo xam ne tamit nit ki imaanam ak ixsaasam moom hmm. moo ko mën a yóbbu benn niveau bi pour ko moom muy mën di réfléchir di mën di xàmmee ne kat ah ndekete attention yàlla de bu mu bindee lii bind na seytaan te muy participer ci dund doomu aadama bi ba nu ko neex mën na ko ko mën ngemb benn waay hmm. waaw waaye ma it bu boo ma songee ma xam ne seytaane la ngémb rek man na moytu merci beaucoup mais nan laay moytoo nag est-ce que kooku ban ban niveau lay am pour mën di moytu ci dund ci loolu parce que bul fàtte ne la foi est au-dessus de l'intelligence ngëm moo toog ci kaw xel mhm. ndax xel bu toogee ci kaw ngëm rek nit weddi parce que xel nu ko neex lay xalaatee te kenn mënu koo yar kon bu ñu indee par exemple gaaf je ne vais pas dire que ne amul mais ban façon gaaf ak nan lañ koy interpréter parce que boo dee xool yonent bi daana wax naan bala ngaay dugg ci soxna na nga ko xool mhm. waruwaay na nga ko xool kër na nga ko xool mhm. mais ban façon xool ndax xool yi ma gis léegi la donc question bi foofu lay nekk mhm. ak lan moo taxoon yonente bi doon ko wax loolu dañ koy bàyyi ak doomte itam ñu tojal ñu ko mhm. pour ñu wax ñu ko parce que bëgguñu di wax ci loo xam maîtriser wuñ ko mhm. mais mun nañ ci tijji ay bunt yoo xamante ne ni boroom xam-xam mën nañ cee développer gën koo yaatal ba nga xam ne kii lay seetaan moom ah dina am kat loo xam ne moom la siy jëlee ci wàllu mais ñi lay seetaan ñi gën a bëri xam nga lu wax hmm. ah loolu de fi leen ko fekkoon fi leen koy bàyyi eh, eh, yow de li nga <laughs> maanaam moom moom réer na moom ah. ay mbokkam réeral nañ ko ñu ko ah. jiitu woon réeral nañ ko hmm. te attrape niveau yooyu ñu daan def hmm. pour yar xale bi hmm. daawlu ci gindi nit ki la ca war dëgg dëgg dëgg parce que du xaj ci boppam dem naan ko bàyyil nangam rek bul di def nangam rek waaw xam nga xam nga yow da ne réer réer garaawul kooku mën na tase ku ko gindi mu gindee ko mais xam ban moo garaaw réer ba pare réere na da ngaa réer ah parce que dafa am ignorant ignorant ignorant mm. boobu moom moo garaaw mm-hmm. soo gisee oustaz par exemple di tafsir mm-hmm. wala di di firi di wax xaal la moo tax benn jour maa ngi leen di tooñ sax mm. ma ne bu ngeen dee wax xaal la xaala rasul la man xaala bi ci ruq bi ak wax parce tey jamono bi foofu la toll soo gisee ñu koy def c'est parce que askan bi ñuy waxal xam nañ ne am na ci foo xam ci mbiru yàlla mm. amul fuñ ca egg c'est pourquoi sax on disait que kan moo war a toog ci télé di toj alxuraan mm-hmm. ak wala rajo c'est pas n'importe qui ban niveau la war a am mais léegi nag luy xew tamit il faut ñu wax ko te dund mm-hmm. ay buzz lañuy ñuy bëgg léegi-léegi tamit lay <laughs> wala nañ ko war a defee duñ ko defee noonu ndax buzz bi mm-hmm. ak aussi bëgg xëcc daraja mm-hmm. ak am ay vue moom moo tax souvent sax nga gis ñoo xam ne aussi nañ koy doxalee tamit nañu ñu jéggal day xaw a sooxe <laughs> donc Cheikh allah Cheikh Fall la ngi noonu vas-y Sey <laughs> jërëjëf Baye Bara mm. euh, amati na solo vraiment Euh, euh, thème bi amati na solo comme d'habitude mm. yor yor mu ngi taxawaat place am comme comme ñu ko xamee rek toujours même bu nekkee dix minutes buñ ko joxee rek mm. ñëppay jëriñ yàlla xam na ne mm. semaine bi passé li ma jot ci ay retour ci émission bi dafa koy sax sama jot mooy li ma la doon wax lu mu tuuti tuuti bu barkelee rek mm-hmm. euh, am solo ndax loolu lañ ciy wër mm-hmm. sëriñ bi dafa wax lu am solo mooy seytaane ni muy ni mu bokkee si suñ dund mm-hmm. ak li mu dugal si suñ biir mais olof xam nga olof moo am problème ñun am na problème yu bëri yu am culture olof moo ñu ko moo ñu ko imposé. Hmm. Euh, da ngay gis ne keroog tuddoon naa ko fi mooy toujours ñun dañuy dellu ginnaaw. Hmm. ndax li na di wax ne kama badaakum tauduuna hmm. fariqan hada wa fariqan xaq alayhim addalaala euh, fi ngeen tàmbale woon dafa mel ni foofu ngeen dellu gis nga ci jamonul jaahiliya mooy ci jamono réeraange avant yonent bi dañ doon wax wax ji mooy affaire u gaaf ak loolu te yonent bi bi mu ñëwee wala lislaam bi mu ñëwee dañu naan mazmum la maanaam luñ ŋàññi la mhm. nit waru koo wax ci nit mhm. léegi yonent bi am yum tudd nag ñu mhm. am yum préciser ndax loolu aussi dafa am solo ci waxu yonent bi wax préciser wax ba pare tudd ko loolu dafa am ndax du nekkaat lu vague yu mel na par exemple euh, sëriñ bi wax na ko sànq mooy yonent bi daf ne gaaf su fekkee ne am na ci ñett lay nekk mhm. mooy si jigéen mhm. wala ci kër wala ci waruwaay xam nga loolu yonent bi daf koo tudd mu leer léegi nag kër lu mu ci wax waaw si si loolu laay ñëw léegi problème bi mooy naka la lan mooy gaaf bi ci kër lan la yonent bi di wax gaaf ci kër mhm. euh, ulamaaw ñoom liñ firee gaaf ci kër mooy ay dëkkandoor yu bon loolu lañ firee gaafu kër maanaam dëkk ak ay dëkkandoor yu bon loolu lañ firee gaaf yu bon ñenn ci ñoom bokk am ci nee nañu aussi jege ndox gaaf la ci kër ak jege marché ah waaw loolu xel loolu culture wolof la nag loolu laa ah, la loolu nag non non dama dégg ñu ne yonent bi wax na ko salaa salaam waaw waaw gisuma ko voilà bi nga pour honnête kër booru géej hmm, pour booru géej pour nit ñi dëkkandoo itam <laughs> Cheikh xool nga say dëkkandoo jàkka jaa ngi fi. Ah. hôpital baa ngi fi. Hmm. école baa ngi fi. lépp rafet na nga dugg ci koñ bi nuyu ñëpp ñuy ñu baax nga waxaale kër jënd ko foofa dafa goo fa ñaari at. Hmm. ñoom ñuy tuxu ñeneen di tuxu si. Hmm. ñuy dem. ñeneen bi ñëw. ñuy dem ñeneen bi ñëw ba kon bi jaxasoo nekkaat leneen yow loolu loo ci mën. waa léegi jaa jëlal nag euh, jullit bi nga gën a wóolu. Mm-hmm. ci réew mi nga may ko ci ñaari barab place. Mm-hmm. mooy benn place euh, marché asalem nga tànn fa barab may ko. Mm-hmm. ak benn ci wakaam ci géej gi nga tànn fa place may ko ak benn jam ñaajo nga xool ban la ciy jël. ci yooyu barab lay jël fi marché bi nekk ak fi géej gi nekk fa lay ah. jël. Oh, parce que jamono la parce que jamono la. parce que jamono la beneen bi mooy dañoo am mal interprétation bi am. mooy ci ni ñuy firee lan mooy gaaf. Hmm. c'est-à-dire jigéen rek ne ko mu ñu takk ko euh, jëkkëram accidenté dee rek ñu ne ko dafa ay gaaf. Hmm. du noonu. Euh, nga jàkkaarloog euh, kii nii nga dëkk ci kër ñaari fan ñett am lu xew ci kër gi ñu ne kër gi daa ay gaaf du noonu nga am waruwaay ñaari fan ñett am lu la dal nga ne waruwaay bi dafa ay gaaf du loolu ñun problème bi mooy lu ñu xamut si suñ culture lañ koy firee. Hmm. même ci islam. olof lu ñu xamul rek ñun si mm. suñ culture lañ koy mm-hmm. interpréter mm-hmm. te loolu moo ñu indil problème yu bëree baree baree bëri donc yonent bi nee na ñett yi si lay gaaf di nekk mooy kër ak euh, euh, kër ak jigéen kër waxoon nga dëkkandoo waaw kër waaw kër waxoon naa dëkkandoo beneen bi moom mooy waruwaay mm-hmm. jamono jooju fas moom moo amoon fas sax daf ko am na fas moo amoon waaw fas ak gëléem daanaka ñoo bokk kii mm-hmm. dañu jamono jooju arab yi ni range rover mel tey fas noonu la meloon ci seen jamono mm-hmm. dañ doon wax ne fas su fekkee ne mënul xare aayul ci xare ndax fas dañ ko doon tàggat ba nga xam ne dafay aay si xare mm-hmm. su fekkee ne fas bi aayut ci xare mën nañu wax ne fas bi dafa aay gaaf jigéen su fekkee ne toog na du am doom am na ci ñenn taxawal ci fas waaw fasu xare da ngay wéq kenn mu wéqal la kenn mu xam ne jekku na leen mu daw daw daw moytu fente waaw mais danga nga ni dañ koy yar ci xare mhm. dañ koy tàggat tàggat la bëgg a wax dañ koy éduquer de mu mokkal ko nag wala mu bañ koo mokkal loolu mhm. c'est autre chose autre chose waaw kon nag da yar ba mhm. toujours day ñëw ak yaradiku ñu ñàkk laa yar rek ñu gaafal la waaw loolu moo ëpp nag léegi euh, ci fas loolu la mais boo jëlee ci jigéen dañu naan euh, ñenn ci borom xam-xam yi entre guillemets ñenn ci borom xam-xam dañ ne su fekkee ne mënul am doom mais mënul am doom ci ban anam su fekkee jël nga ko ci jamono ji jame jigéen ji dem pala def planique ba dara dal ko ci mënatul am doom est-ce que kooku dañ naan dafa ay gaaf kon euh, lu bëri man ñaari yee aw ma ci problème mais bii moom c'est relatif bu ñuy wax ci jigéen bi hmm. maanaam su manta am doom rek euh, ñu tuumaal ko ay gaaf te am na si suñ famille yi fii ñu koy def da yoo xamante ni jigéen ñi ñu ngi ciy daj lu méttee métti hmm. ñu ngi ciy daj du ci ndax moom mi ngi fajoog waa ndax mu ngi faju ndax nangam i nangam da ngay sëy si kër am fa ñaari weer ñetti weer est ce que ñuy yurnu ndax jël na ëmbam jëloon ëmb mu nekk fa benn at deful réagirul ñu nekk fa ñaari at réagirul ñu commencé ko ay gaafal. te ñoom yéenewul la doom dong de. Hmm. xew wi ruy wi nu nara a tardé. moo leen waaw lang gi. lang <laughs> gi ñu leen lang gi leen nar a xañ. lang googu eh, am na loo leen xañ rek ñu taqal la benn feebar mooy da ngaa ay gaaf. te bis boo fa amee doom. Hmm. amati amati waaw moom ku muy njëkkanteel. ok di jur di teg nii rek. jur di dañ lay tuumal sax naan xool ko mu ngi xalaat ndono ga pour am ay ah. doom ju bëri mu ngi xalaat ndono ga léegi nag ndaw si nuy wax moom amul gaaf hmm. ñay wax ñoo yor gaaf gi ñoom ñoo yor gaaf ndax gaaf moom mooy benn gaaf moom mooy mën a fen hmm. gaaf mooy mën a fen nga baal ma ci kàddu wala wax loo xamul mën a dox gaaf mën a dox mën a wax lu sa yoon nekkut loolu hmm. gaaf weesuwu ko loolu gaaf weesuwu ko maanaam audio yi gaaf la gaaf la audio boo gis jàllale ko uh-huh. audio boo gis boo gis liir ko jàllale ko ne man lay gaarwaale wala diw de diw la lay gaarwaale loolu gaaf la ay gaaf la rek oh, loolu mais manque d'éducation la feebar la fa lay ko tàmbalee ñaar ci manque d'éducation de base maanaam yaruñ ko maanaam ci diine mu xam diine fan la teg lu nekk fan la koy gëmee ak euh, fa lan la ci war a gëm ak lan la ci war a bàyyi te Sénégal ñaar xoolal ñaar buñ ko waxee rek si gaaf ci ñaar lañ koy delloo benn ci wër wërsëg ñaar ci dee Mm-hmm. te ñaar yooyu yàlla libéraliser wu ko yàlla moo ko téyal boppam alors allahu latifum bi ibadihi yarzuqu man yasha mm-hmm. yàlla moom mooy ki yëwan ci jaami te moom mm-hmm. mooy wërsëkal ku ko neex voilà beneen bi mooy dee wa ma kaana li nafsin an tamuuta illa bi iznillahi kitaaban muajjalan amul kenn kuy yàlla nee na amul benn bakkan buy wadd lu dul man maa joxe ndigal ci delem euh, bi su dele bi ba ci sa bosu bopp bi wa kay ko boobu kay moo tax ñuy wax ku nekk sa bosu bopp bi la ñuy wax kon donc ñaar yooyu te Sénégal bu ñu la waxee gaaf rek soo dégloo ci ñaar yooyu lay dellu benn ñu ne moom de moo teree diw am wala diw dee na ñaar dinañ ko tudd mooy dee ak wërsëg. Mhm. saa yu ñu tuddee gaaf ñaar yi moom dinañ ci tudd benn. te ñaar yi yàlla libéralisé wu ko maanaam dénku ko kenn yonentu bi sax dénku ko. Mhm. yàlla moo ko téyal boppam. Mhm. léegi nag loolu su fekkee ne yaa ngi koy wax benn. yow yaa ngi dinañ dute si sa ngëm yàlla mhm. si sa ngëm yàlla yow fan lañ la yare ak lan lañ la jàngal ak yow lan nga gëm mhm. su fekkee ne nit ki dee na nga tudd gaaf ne diw a ko waral mhm. su fekkee ne nit ki ñàkk na nga tudd diw ne diw a ko waral yow lan lañ la jàngal si sa si sa diine ak yow lan nga gëm loolu moom dañ la koy dañ la koy laajaat vraiment xoolal ni jigéen ñi sonne léegi jërëjëf sëriñ Ablaye Dieng gis nga ñi jigéen ñi sonne léegi bu njëkk mag ak i maar day ku ci dawlu rek mm. dañ daan jël sa jabar jox la ko mm. nga mën a continuer éducation njaboot gi mm. leneen jóge ci àll ba ñëw bañ leen a rax indi jikko ju ñaaw yàq léegi jigéen joo gis bu borom këram xase ba noppalu ma nga ŋànk ay doomam danañ miraas danañ leen génne ca mbedd ma yaay ja sumul ba mu ci am wala sulus lam cay am rek dana ko jaral moom ñu ne nañ leen jaay kër gi gone yooyu na war a taxawaale ji fanaani ci àll bi réer yi yooyu bu njëkk dañ ko daan dindi. parce que dañ naan kii du génn kër gi ñëw na ba pare nan ko dolli góor gee mooy magam mooy mag euh, kii wala keekat mooy rakk ci dem. Mm. ndax rakk ji mooy gën a nekk ndaw waaye dana dimbali kii li jëkkëram feebaroon yépp mu toog muñ ko bi jëkkëram nopp la bu ñu ko joxee rakkam dana dabaate ji ci yu baree baree baree bari yooyu nag boo ko fi defee tey ñu gaafal ko man duma donn jabaru jàmbur di waxu sa morom mooy mu dee takk jabaram mm. yu demee noonu aussi aada la bu métte métti te wutaluñ ko xam nga yii dañ ko war a dugal suñu constitution mhm. di ko imposer def ko loi parce que baax na ci ñun di di ko protéger mhm. mais dangay gis ku toog di wax ci constitution di wax ci sunu sunu sunu code de la famille te doo indi ab ustaas mhm. bu mën a wax ci lislaam ñu mën leen a confronter bu boobaa danañ xam bii ñu rocc fii ëpp na fii nañ ko rocc fee hmm. nañ ko yamale ñu jël note dem jëm koo xeex ci tribunaux yi hmm. mu nekk lu baax ci famille bi hmm. waaye xëy xëy rek tuuri xale ya jaay kër ga génne leen jabar bi taxawaalu ci mbedd yi yéen itam ngeen ne ci kër gi bokk ak borom ndey ak baay te du ngeen takk ay jabaram waaye du ngeen jël ay doomam sax jël leen en charge ndax bu yooyu gaaf la ah man daal du ma donn ko xam ne jëkkër ji daa accident bërki dem balaa ëllëg ma dee loolu tam seex jigéen ñaa ngi ciy sonn waaw xanaa li ñu doon wax de xanaa proposition de loi la doon doon yoo xam ne <laughs> dañ koy def à l'assemblée ñu def ko eh waaw comme ni nga xam ne noonu la ko waaw def nga xam ne par exemple des fois sax bu hiver amee kenn du génne kenn ici wës du génne nit ci location ah. day xaar ba mu kii ba ne ko waroon nañ ko def fi dem nga xam ne nawet bu amee kenn warul génne kenn wala année scolaire bu mu weesu huissier war la génne bu nekkee expulsion war na am mais xam nga aussi tamit loolu boo ko waxee effectivement xam nga société bi dafa am nu mu tëddee mag ñi ne nag ñu njëkk ñi ceddu lañ doon dund mm-hmm. mais tamit ñi nga xam ne après dañoo ñëw ñooñ dañu organiser woon xam nu ñuy organiser jamono dégg jamono mm-hmm. xam nga xam àdduna ak dégg àdduna dafa bokkul ñi nekk fii léegi ah, jamono ji ñu nekk nii mm-hmm. tey dama la wax ne ah, àdduna bu doon ne café la xaalisay sukaram c'est-à-dire moom la ñu gën a teg bët que par rapport par exemple ak li nga xam ne moom la yàlla xam kañ la ñuy wax ne lan la si l'islam wala yàlla jàll mm. bu nekkee seen intérêt taxawul mm. wala nit dee wala ñu war a tudd mais bu mm. nekkee ne par la <laughs> doo <laughs> il est ngay gis bañ nekk ba am na yoon sax su nekkoon ne millage dafay am ñu ne leen yow bu tribunal wala bu diine bu koom-koom bu baree dañ naan nañ dem tribunal ah. parce am na nu ko diine tëree lay fële. am nga fa benn avocat wala nijaay. Mm. ju ju ne ci yoon même boo ci amul avocat sax am yaakaar rek. même boo fa amul avocat atteeb di atteeb tribunal ak atteeb diine bokkul moo tax tribunal même boo fa demoon dañ lay laaj ndax da nga bëgg ñu atte la ci si di ñu milaas ko ci sa diine wala ñu milaas ko ci wàllu loi. Mm. bokkul dafa am ay sart. Mm. bu nekkee ne koom-koom ba yaakaar nga ne li nga ci am du bari da naan nañ ma atte ci ci ci loi. Mm-hmm. xam nga donc gaaf boobu nag. ngay wax tamit su su génnee l'islam rek tuddatul miraas séddoolee tudd waaw waaw. <laughs> mais buñ ci d'accord itam l'islam du ko nangu. non non rek lay tudd. <laughs> mais la loi sax c'est un consensus. <laughs> ku dee ñu séddoo. waaw xam nga xam nga boo ko jëlee ci miraas miraas moom euh, si xel. danga uh-huh. naan losikut. waaw ci xel. waaw waxuma li ah, mais boo boo xam nga tey buñ ne góor góor ñaar jigéen benn. boo demee te boo waxee ba am na koo koy dañ naan loolu losikut pourquoi. mais mbirum yàlla kenn du fa dugal. logique bi mooy ku góor ki ñaare. Hmm. rakkam yu jigéen yi wala magam yu jigéen yi këram la ñuy mujj moo leen di mujj yor. boo seetloo sa baay xaw ma fu mu ne. Mm. waaye sa bàjjan sa mm. bàjjan mm. day ñëw ca kër ga. di fa yàgg. di fa gane si. te léeg sax mu toog fa. waaw loolu kay d'accord nañ. loolu taxoon ñu ne nan cër góor gi. lu gën a bari. parce que ku jigéen kooku itam loo ko jox lu mu bari bari bari mën na ko jox ca këram. xaalis ba naaw. boo liggéey jëkkër ji takkal ko wujj mu dàq ko mu génn. bisimilah. ab logique a ngi ci biir Ablaye. waaw logique mu ngi ci biir mais nag su nekkee ne charte yàlla la. Mhm. foofu duñ fa dugal xel. wala nga am loo fay wax. Ah. Hmm. da ngay topp rek. Mhm. bu la nekkee arrangul na nga dem sopp la la la la. voilà <laughs> nga koo layal de. waaw mun nga koo layal. mais xam nga bu mu nee tel tel tel bon peut-être xam naa ne ça va faire l'objet d'un débat loolu beneen affaire la. mais dama dama doon bañ am ku dégg rek. non dégg naa la voilà voilà. ñàkk déggin day yàq. léegi yow hmm. euh, ba euh, Cheikh Balba Cheikh uh-huh. Ablaye. Hmm. ci miraas itam. amul fenn fu fi xam naa am na nag xam ne miraas mooy seen domaine <laughs> spécialiste lañ ci waaye dañuy waxtaan nii rek miraas hmm. euh, itam bu ñuy séddoo alal ji parce que léeg nga dégg jàmbaar ju dee jàmbaar bàyyi na juróomi kër bàyyi na ñeenti oto. bàyyi na magasin xaalis ba di toll na nangam. xam góor yàlla la. xeex na ñu war koo seddoo d'accord amoon na ñaari jabar wala ñett. mais miraas l'islam sóorul benn yoon ñu séddoo waale jabar yi. boole leen ci miraas bi jox ko kii kat nañ ko jox ji mii mooy magam kee nañ ko jox papa mais mooy mooy rakkam. kee nañ ko jox usmaan mais loolu loolu du ci am. ñu jox ah pour pour ñu doon jabar yi. waaw maanaam ñu biraasaale leen ci biir. Ah, bagage ñu ànd ak seen i wëlis ak seen i bagage fekki. ah déedéet fa ñuy sëy yóbbaale fa seen alal. déedéet loolu bokk ci. voilà ok. <laughs> donc xam nga foofu par exemple code de la route ah, <laughs> waaw xam nga code de la famille ak li nga xam ne moom la suñu borom wax dafa bokkul mhm. code la famille nit ko defar te lépp luy nit di defar du mot day am manquement parce que dafa am texte révélé ak texte inspiré mm-hmm. texte euh, révélé moom mooy li nga xam ne suñu borom moo ko tegal kenn du ci dindi virgule wala benn point texte inspiré doomu aadama moo toog di ko xalaat di ko mm-hmm. teg te toujours day am manquement ba abadan daay man ndapat nag mm-hmm. te je fii kii konk tamit amul ku ko mën a motal day évoluer kon donc bu ñu ñëwee si gaaf bi xam nga tey bët bu aay mhm. ak làmmiñ bu aay ci mhm. ne d'accord na ci mhm. beneen bi mooy ki nga xam ne par exemple tey bu ñu ko takkee mu jëkkëram dee d'accord nañ ne am na si ñoo xam ne seytaane mën na leen a roof ba bu ñu amee boroom kër mu rey ko mais kooku kan mooy toog di ko décortiquer kan moo ko xam ban borom xam-xam ak nan nga ko mën a dindee te effectivement ça existe oui. parce que seytaane yàlla moo ko dooleel kàttanal ko mu am pouvoir yépp ci loo xam ne mën na koo def xanaa ci ku yàlla musal mën na ko def beneen bi moom mooy aussi tamit nit di nga gis mu dem ci hôpital léppam mot dara manqué wul waaye seetaani téye ko ba du am doom mm-hmm. te ça existe dans la société mm-hmm. maintenant nag soo ko waxee ci ñenn ñi dañ naan non ah bon affaire yi nii gëm-gëm déedéet ma ne leen non ku ci nekk da koy nangul xam-xamam mm-hmm. docteur bi danga koy nangul xam-xamam ki nga xam ne yàlla da koo baaxee ci wàllu ñaan wala ci wàllu kii tam da koy nangul xam-xamam ndax am na ñoo xam ne ñaan moo tax allahuma wala kaay moo tax ñu am doom mu dindi leen seen seeni problème kon loo gis rek am am na solution am na nu ko suñu boroom tëralee am na ci kum ko def da ngay gis magum quatre-vingt-dix ans jaboot nekk sax boroom xam-xam raw fii mën naa nekk imaam mën na nekk kilifa bu ne dem gonek vingt cinq ans anesthésier ko ubbi biir bi jënd ci li muy def ñawaat ñu bàyyi mu ñibbi kenn du wax parce que xam-xam la da koo jàng kenn du ko poser question ñun itam fii bu ñu doon def loolu dana noppalu boroom xam-xam bu xasee ba ñëw ba wax rek du am dugg ak génn ak lijjanti waaye lu la arrangé wul nga dem waxi feneen. Mm. dem wuti ji wala feneen mais temps bi jeex na Cheikh. Bintu Fall nee na jeex na. Eh, waaw soxna Bintu ñoo ngi koy gërëm bu baax a baax xam nga lu tax sax ñële kenn dañ mënul am ci loolu xam nga léegi tamit société bi loxo bu set am na loxo bu tilim am na <laughs> looloo tax tamit te jaxasoo bu bari rek foofu bari. moo tax dañuy ragal ci côté bee gën a <laughs> naw côté bële. Mm-hmm. ndax fële c'est réglementé fële nag c'est par réglementé. Mm-hmm. donc ñoo ngi ciy jé jéggalu bu baax tamit sëñ Baara mm-hmm. wax bi am na solo di nuyu suñ sëriñ bi tamit di ko sàkku ñaan ci moom. Eh, waaw Ablaye ndax li ma la man damay takk di naan di sangu di gat di suul di saraxe tamit ah. <laughs> sëñ Baara maa waaw di nuyu sama waa rajo bi yëpp nag di léemu di muslu yii mënul ñàkk bala maay dugg nii sax dernier bouteille dama koy tuuroo <laughs> doo doo ah. doo toog mbëri làmb yi de loolu la def <laughs> ragal gars yi seet si leen seet wóorul <laughs> non bilaay ku bëriwul ñu bëri daanu sa kaw daanu de euh, waa li mu wax dëgg la appuyé na lu bëri nag ci wàllu seytaane mm-hmm. te wax na dëgg bëri na loo xamante ni mu ngi xew si suñu société seytaane la rek mm-hmm. shayatin jinni wal insi